station bi moom dama ah kenn ku góor ki de wàññeeku na mm-hmm. waaw man leen wuy si leen ñu daan bi daal ciy nekk récupéré xale bi ñu dem facturation ñu leen ngeen fi dexa am day fay ak yooyu noonu xam nga suñu si hôpital sénégalais rek yi mhm. lijjanti ba vers dix-sept heures dix yooyu moom ma war a génn pour ñibbi si ci kër gi léegi sage-femme bi daan may waat aussi téléphone man leen waaw ñu ma foo nekk ñu ma bul bougé di ñëwaat ci salle bi fi del daal di ñëw ñu ah yàlla def na tamit ki nekkoon changement yàlla def na li gën waaye nu mu nangam nangam wax noonu muy muy ñaari doom yi dem waaw. muy ñaari mm-hmm. léegi après ma rek ñu daan may defal noonu li ma toogal jox ma jox ma ndox di ma defal noon li ma toogal lépp yàlla la rek ma daanee toog léegi sama mbokk yi tamit nekk ca sama borom kër di lijjanti pour jot ci xale yi pour leen mën a récupérer génne leen ko sonn ci social bi ñu leen daal ci xaalis bi vingt mille lan ci mën a may yooyu noonu wax seen kenn ku ne xam nga li nga man rek ngay wax ñu lijjanti ba sonn ñu nit comme jëndoon nañ ordonnance xaalis bi yoru yëpp naasa nañ ko ci ñetti xale yi mm-hmm. ordonnance ba pare ñaar ñi wàññee léegi ci lan nag décidé ne dañ ko fi bàyyi kon ba lundi jël suñu temps xool a jàppale pour xale yi ñu récupéré xale ak sama parents yooyu ñu waxtaan waxtaan dem cas social bu ne fu nañu teg fa seen tànk wax ñu leen chaque jour ka fa des kenn ku jigéen ka fa des nii ñu téye dama tegoon sax dinañ ma ko jox mais ci lan ni ma jamono ji fi mu toll surtout ay triplé ñu tuuti boo leen boo ko gàddoo nga yóbbu ko tamit yow it mën ngaa amaat la ci naqar te boo ko fi bàyyi peut-être mën na sauver l'honneur léegi daal xam nga lan la bàyyi ko fi léegi mën leen nu muy demee ndax da ngeen ma ciy jàppale wala dara ñu ma waa bàyyi ko fi te tërëwul chaque jour bu ma demee njaga mhm. ordonnance yi plus de cinquante mille dama koy jënd te gi sa sama xol dafa tooy léegi laa fa dugg nii dama léegi maa maa doo ko génne waat ñu ne la il faut nga fayaat temps loolu nee na dañuy fay loolu lañ wax sama ñoom yaay ak sama borom kër ñoom ñëpp loolu lañ wax ñu ne carrément bu fa génnee na la leen la la fay xaar ndax tey da nga waroon joxe ko caution fu na cinquante mille pour xale bu comme kenn ku jigéen ka ma nga fa te chaque jour ma dem rek ñu piqué ordonnance bindi ko fa wàcc ko fa mhm. moo fa des ah, ko ni xewal ko nakkari lépp ba ndékki sax bàyyi ñu ko may dem li ko dama boolu ma ni ànd ak sama benn sœur fan demee ñu wan ñu ko nii naka ma dem rek ñu ma jox ordonnance mooy jus jus de bi dese naa moo fa desoon J2 2 bi moo fa des léegi ci laa demee ci pharmacie bi noonu xam nga ñoom it ñu daal dawal yërmaane ni ma xam nga la soxna si ma ordonnance yëpp mënoo koo jënd a da ngay ànd ak dal nanuy jéem a def leen buñ a ko mais ñoom ba tey nugguñu loolu boo demee dañ la temps bi ñu la bindal ko xale yi tey boo ko jëndul tamit responsabilité bi ci yow la nekk léegi nag man nag ma ne sama yaay te déjà man ñii di wax ak yéen rek billaahi maa ngi suivi bu wax man xam naa ne man sama bopp wéeruma mais damay am maîtrise ngor rek laay demee mais man xam naa ne sama bopp wéeruma léegi man daal le douze passé le douze bi alxames bi passé dama amoon ay triple cancaaro hôpital Pikine léegi yàlla def ñu téye ma fa ba le quatorze samedi bi ma war a génn man ak samay mbokk léegi ñu ma préparé wul da ngay génn léegi ci lan ma ci laa xaaral ko bala maa sage femme fekk ma foofu ni ma da ngay dem ci da ngay dem ci pédiatrie bi nga xooli sa doom Gracias.